Euh, suñu borom tànk moo ngi fi mu ngi ñuy bàyyi suñu bëkkeen yi incha allah dinañ ko am donc amul découragé yokk cere doole ñeex la donc Hervé Penaud benn chroniqueur bu nekk du côté de l' équipe l'équipe euh, l' équipe du sport l' équipe l' équipe du soir autant pour moi xam donc muy l' équipe journal magazine l' équipe fa bind wàllum Afrique en général moom moo si gën a nekk gën a nekk spécialité donc moom nga si am spécialité du coup boo xoolee Coupe d' Afrique yi wala yenn émission yi bu ñu wax ay Osimène ay Diego ba histoire wala yu demee noonu moom moo si gën a am lu bëri quoi xelam da si màcc daal noonu laa ko mën a waxee du coup moom euh, émission bi doon daw da doon wax si rek waa waa Marseille est-ce que seen e, effectif c'est taillé pour la Ligue des Champions déjà nii nii nii après Kondogbia après ñu jënd Aubameyang Lodi euh, Ismaël Sarr et tout donc euh, explication lañ soxla woon ku nekk jox xalaatam moom mu wax ne Ismaël Sarr xam nga donc gaaw na ni Mbappé maanaam Mbappé gaawaay bi mu am. Ismaïla Sarr am na ko ba pare nee ne Ismaïla mooy moo gën a entraîné sax Mbappé quatorze fois plus que Mbappé mais nee na lenn rek la war a euh, entraîné mooy euh, di cadré di dugal ay bi mooy mooy ñu yàgg wax ñun Sénégalais fii efficacité parce que nee na il faut nga boo ko mënee gérer nee na Ismaïla Sarr il il a besoin d'être am noo koy doxalee moom maanaam entraîneur bi yor bi ent bi ko yor dafa war a xool nan lay nan lay moom na lay defee ak moom ba li mu bëgg ci moom mu am te loolu man mën naa kaa nangul waa ji parce que xoolal Paul Pogba boo leen fàtte ko en 2018 xam nga Paul Pogba ñëpp xam ne talent talent la kenn du ko weddi ko weddi mais nan nga koy ba lii di nelaw ci moom dëgg nga am ko Deschamps la xam coupe du monde bi yàlla dama bëgg nga nekk six de récupérer du joxe boolu def lu doy waa c'est am na technique nangam nangam mais loolu boo ma ko defalee incha allah coupe du monde nañ am ko Ismaïla Sarr aussi boo xoolee Aliou Cissé moom commencé am ci moom loolu boo xoolee contre Brésil da attaqué di défendre moo tax sénégalais bi xamante ne saa ne match boobu bu mu jeexee da ngay kontaan si Ismaïla sar. boo kontaanul si Ismaïla sar gisoo match bi sénégalais yi gis je pense donc loolu moo tax ne mu ne il a besoin d' être bien xool ko bu baax cadre mooy nee na gaaw na bi Mbappé maanaam daw yi muy daw di daw xam nga buñ ne la Mbappé jamono bii bu ñu waxee l'un des meilleurs du monde jamono ñoom kii Ronaldo Messi sax benen génération mais génération bu bees bi saa yi Mbappé lañ lay wax ak Haaland wala sax Mbappé moo gën a parce que Mbappé boo xoolee gars yi wax nañu en terme de marketing en terme de de sax siiw moom moo gën a siiw Haaland donc ñii ñii marque yëpp ñii ñi publicité yëpp ñëpp Mbappé lañ bëgg xam nga donc boo gisee Arabie Saoudite ñu ngi daw suba ba ngoon ay trois ay millions Real Madrid nangam nangam Mbappé c'est c'est c'est extraordinaire Mbappé c'est extra mais léegi nit moom mu ne Mbappé daw yi muy daw gaaw parce que ba bi am ñaan moo fi man si daw sax xam même si nag am na yeneen statistiques yu génn wane la neen mais nee na gaaw na ni Ismaïla Sarr am na gaawaay boobu te loolu ñun sénégalais yi parfois sax du ñu soxla yeneen chroniqueurs yi mais ñun sénégalais bu ñu nemmee ko euh, Ismaïla Sarr ñun xam nañ ne Ismaïla Sarr gaañu gaañu rek yaaxal mais Ismaïla Sarr fi ngay gis Nicolas Jackson nii di fi gis Sadio Mané non man yàlla xam na ne gëm gëmul ne da koy am parce que dafa am lu jafe si football léegi nii football léegi boo fi gaawee mën a dribble te mu nii laa doon si dribble mën a dribble am na puissance gaaw na am na lu xamante boo ko amee si football moderne amul équipe boo mënul rey moo tax benn exemple laay faral di joxe bu may wax Ismaïla Sarr muy match boobu Liverpool xam ne daa toog kenn gañew ko ñu naan Virgil van Dijk le meilleur défenseur du saa yi jàpp ñooñu wala leen daw accéléré dugal biam nekk homme du match match boobu ñëpp a ngi koy fàttali di ko tuddee premier li mais Ismaïla gis naa ne Austin Watford xaw na ko tardel xaw na ko tardel noo

بوفر خمن سين فري جور دو تان اي كمان غيسنا رندي ان شاء الله مو نيه يالا مو نمو ديف سيزون بو اكسلان سيزون بو اكسلان لاي ديف ان شاء الله لول ما گم لا دونك مبوكي اوس دم لين باي اوس تيمين دين واخ سين خلات اك سين غيس غيس سي بونو لي مو واخ نا اند غن سين اند غن سي ما جاي ديفال لي واخ مبا بن سو سين فوتبول تي في